moo tax ñu ñu ñu reporté lii di euh, manifestation bi ñu waroon amal démb di 29 euh, je pense que comme ni ko son Sonko waxee rek moom noonu la ko waxee woon balaa Ousmane Sonko doon jël kàddu bi et c'est très normal bu fekkee ni ñoom askan wi ñoo tax ñuy xeex et askan wi buñ nee leen ni ñoom moment bii ñu ko bëgg a def c'est pas le moment même si bu ñu génnee dinañ leen topp mais c'est pas le moment ñu ñu dégg leen aussi c'est c'est à saluer pas li ñu waxoon rek. mais mais loolu mooy jafe-jafe nguur bi nekk senegal ah nguur bi nekk senegal moom pour moom bu ngànkee dafa war a dagg loolu nag dama xamul ndax nguur bi la wala ka jiite nguur bi lii sanu yaay bi wax moo la dëgg mbooloo boo leen jiite nu am fu mu toll mbooloo mi ne lii la ñu bëgg defal loolu. Mm-hmm. li nga xam ne yow moom nga jàpp ne mooy yoon. Mm-hmm. soo bëggee mbooloo mi ànd si wan leen ko ba mu leer. su leerul mbooloo mi du la gëm. absolument te su la mbooloo mi gëmul mbooloo mooy am dëgg dëgër bopp coincé fermé bouché loolu moo baaxul. je pense que rek xooli nii rek damay dem kenn du ma téye bu la kenn téewul li laa téye mu ngi sa kanam. Mhm. sanu yaay bi la mu wax moo la dëgg. contexte bi c'est pas approprié li nga ñu bëgg a def loo nangam nangam askan bi bañ na kii na ngeen toog bàyyi wàcce tension bi. Mhm. dem ci beneen fànn. léegi nag lenn moo ma jaaxal dans toute cette histoire là de wàcce tension xam nga lan moo ma jaaxal. Mhm. na bu ko. oui. mooy ni ñuy waxee démb pression bi ñu teg waa yeewi askan wi kilifa yi di leen woo ka nekk yi jóg. vraiment il faut ngeen bàyyi mu seet ñëpp yi wax. ñun ñii sax wax nañu ak keneen ak keneen am na fu nu waxee. Mhm. ne non noo am na yoo xam ne nangam nangam bàyyi leen mu seet xulit waaw lan moo tax pression boobu duñ ko mettre nguur bi fi nekk pour que mu def mu bàyyi mu def at mu moytu quoi nguur bi day foncer rek lu tax duñ ko wax ne ko mais bi yéen tamit nag taxaw leen nag. la pression kii est mise sur l'opposition pour ñu bañ a dem fenn fi non que cette pression soit mise sur. pression mën naa weesu manifester. non c'est-à-dire pression. Mm -hmm. populaire bi mooy manifester. Mm -hmm. mais pression bi nga xam ne mu ngi jóge ci ay leaders. ay bonne volonté yuy dem opposition bi. Mhm. te li li li ci nekk mooy bu ñoo wax ak opposition bi dañuy won ñëpp ne ñu ngay wax ak opposition bi mais bu ñuy wax ak nguur bi tam nañ ñu won ne ñu ngay wax ak nguur bi. nañ wax nguur bi ne ko sëñ bi fi ngeen bëgg dem du dëgg du yoon lii nga xam ni wax nañ ko moo di jaaral leen mbir mi ci yoon dëgg mi fa mu war a tege tege leen ko fa nangam nangam bu ngeen bëggee nit ñi jox leen cër. Mhm. mais malheureusement xam nga sànq am na lu ma la junjal. waaw san boo ko wax de. ma ko wax. waaw waaye loolu ba amee moom dana xumuta dana dagal. du ma ko tuddagum nii que. instant bi maa ngi lay ñaan mais xam naa ni wax ko rek nga bëgg bul ko wax sekk. bul ko wax. laajal internet yi daaw. <laughs> bul ko wax. <laughs> laaxira yoo. waaw sax bul ko wax de. dama laa ñaan nag. moo sam xarit nga yow. bul ko wax de. est-ce que xam nga ni gaal ga dul teer dañu ko àttee. xulil <laughs> gaal ga la dem nii rëdd wuy ma day jàll. wax beeg mbex bi ci biti la jëm. Fassane nag bul ko wax parce que man gedd reeru jàmbur man sama yoon neew ji nag li gën a grave ci àdduna. Mhm. classe bi ci ginnaaw de nee nañ man maay kaf ba wax ko waaye duma ko wax de. xam nga lu grave mhm. <laughs> ci mbir mi xam nga lu grave ci mbir mi. punkal maa gedd ak ay ñaaw. Mhm. kilifa ba toog. internet yi nee nañ nga wax internet yi nee nañ nga wax. doo fi waxee de kilifa ba mhm. day ñàkk fay de. Fassane su ma la toppee da ngay wax nañ wax ci kasu xalaat bi tey. vingt heures ba vingt heures trente trente minutes keroog dix minutes la woon.